asalaamaaleykum euh, nuyu leen bu baax a baax yéen ñuy euh, teewlu waxtu wi temb ci Seneweb diñ ciy topp bés bu yàlla sàkk euh, ma leen di nuyu sax su ne ñun tamit mbégte ak ca waxtu la ñuy àndal di feggoog yéen tey nag dañuy waxtaanee benn mbir ba nga xamante ne ni wax nañu ko biral ba ñëpp daal di si jot di rek wàllum insécurité maanaam ñàkk kaaraange gi nga xamante ni am na ci forêt classée bu mbaaw bu weesoo agression yi nga xamante ne askan wi ñoo ngi koy dund am na leneen lu gën a garaaw loolu ilaa lu gën a doy yi nga xamante ne ni am euh, ci biir euh, bërëb boobee euh, amaana nit ñi xamuñu ko ila amaana birul na mu waree biir ba ñu bàyyi si xel bu baax a baax li ni mel tax tey ñu toog ak kenn ki nga xamante ne nii mën nañoo ne rescapé la mucc na ci lenn la nga xamante ne nii bëggoon na ko fa dund di lu loo xamante ne nii tung ne du teew ñuy nataal dañu koy bàyyi moom ci jëmu boppam mu nuyoog yéen ñu dal di waxtaanee lan la dund foofee ca bërëb boobee nga xamante ne nii amul benn kaaraange nekkee file ci diwaanu Ndakaaru Bakary maa ngi ah maa ngi lay fay quoi. nga dund euh, benn mbir la nga xamante ni dal na la ci euh, biir forêt classée bu Mbao wala ci alentour gi loo xamante ne nii mbir mu doy waar la nga euh, dikkaatal ñu si lan la exactement. Eh, fii kay moom. waaw eh, damay yeewal nit rek ay doomu aadama yi ñu nekk si Dakar fii comme ay doomu aadama nekk nañ si dëkk bi ñoo xamante ne dañu lay nax eh, yóbbu la foo xamante ne dañu lay rey. E, yàlla defoon na ba man Tëngéej laa doon liggéey e, ma jóge fii jël oto bi dem wàcci Jotiba ma jóge Kiri Njaayloo fii ma jël oto bi dem Jotiba usine foofu laa doon liggéey e, ay booru 19 heures yooyu noonu après ma wàcc rek si oto bi ma gis benn booy après ma romb ko ma dem. léegi mu woo ma garaan ma ko de garaan wuyu ma ko après ci la mu woo ma ñetteel bi après ma gesu ci ginnaaw ma xool ko mu ne ma taxawal ma taxaw mu ne ma e, man yoofu laa bëgg a dem ma ne ko ah waaw mu ne ma sama sëriñ foofu la nekk ma ne ko waaw mu ne ma dama bëgg nga jàppale ma ak li may lekke ñaar fan lekku ma après nga jàppale ma nu ma mun a déggante ak moom ma ne ko loolu kese mu ne waaw ma xool ko mu joxuma ko de ma xool ko depuis si kaw ba si suuf ma xam ne nii jeunesse la xale bu góor la comme man lu ko dal mun na maa dal te aussi am na li yàlla wax foofu tan ma xalaat loolu ma yëkkati 2000 francs joo ko ma ne ko demal géndi li nga war a lekk comme xiifa nga ñaari fan lekkoo ma joo ko ma dem géndi crédit 500 dugal ko ligne ma ne ko bo paree après nga ñëw woote ci la pare rek mu ñëw ma jox ko téléphone bi mu woo sirimam bi ku nekk xaw ma yoof après mu waxtaan ak kooku bi doyal après ci la ma wax ne léegi damaa bëgg a dem ma ne ko il balaa ngay dem comme xamoo fii il faut nga taxaw ma jëli jël 66 bi ma ma kii ko fii après boo duggee si oto bi nga dem sama xol bi foofu lay sedde comme xamoo fii mu ne ma waaw amul problème après ci la dem mu jël oto bi 66 ba mu dugg nii bési bu maa ngi taxaw si buntu bi ba mu dugg après mu mu dem mo tàllal ko loxo mu dem après ma continuer dem usine ba moo commencé liggéey bi ba ñu posé tuuti rek sirimam boobu noonu woo ma si téléphone mu ne ma yow yalla na yàlla fay ma ne ko amin defal nga lu rafet defar nga lu baax mais yalla rek moo lay fay ma ne ko waaw adduna noonu la tey tey gi ni si kii jeunesse la te aussi Eh, am na lu yàlla wax foofu tan koo xamante ni day voyager amul lu muy lekk boo ko mënee jàppale jàppale ko rek te yàlla tax parce que moom xaw man xaw ma ko après noonu la mu ne ma jërëjëf te aussi man séeréer la yàlla defu na séeréer la ma ne ko waaw amul problème mu ne ma loo soxla essa bi ma ñaanal la ko ma ne ko essa bi kay moom loo eh, tukki rek essa bi loolu laa bëgg mu ne ma kono incha allah da ngay tukki mu ne ko ma ne ko amul problème mu ne ma incha allahu yéen li nga am sa xol bu e, e, lu baax li nga li nga ma defar dinaa la fayloolu loolu ma ne ko amul problème après noonu lañ ko bàyyee ba borset mu borset borset après mu woo ma téléphone mu ne ma yow yaa ma defaroon lu baax te il faut ma fayla lu baax ma ne ko ah mu ne ma mu ne ma mu ne ma amul problème mais il faut nga génnee sarax yi ma ne ko ban sarax la mu ne ma nga génne ñaar nenni ak kayit bu weex ñett ñetti après nga dugal ko si si yooyu yu may ne si yooyu noonu ma ne ko ah waaw ne après nga jël junni ak juróom ñaar téeméer nga dugal ko foofu noonu nga indil ma sarax bi waaw defal ma loolu rek te yàlla tax mais booy ñëw bul tàggu sa soxna bul tàggu sa dëkkandoo yi ma ne ko ah mbaa loolu na mu ne ma baakare doo defar nit lu baax mu fay la lu bon ma ne ko loolu nga wax de te jamono bi dafa doy na waar mu ne ma loolu kay moom loolu du mës a am waaw waaw bula kenn yëg mu ne ma bu kenn yëg si kër gi mm-hmm. après ci la man nag doxuma noonu parce que xam naa ne borom soxna la ma tàggoo sama soxna ma dem tàggoo sama benn xarit bi ma ne leen maa ngi nii di dem ci laa dem waaw ma ma waaw mooy def saxara boobu noonu après ma dem bi ma demee mu ne ma booy bi dina la ñëw jël si si eh, eh, booy ki ma joxoon 2000 boobu noonu ba mu wootee mu ne taliban boobu noonu mu ne ma dina la ñëw jël si si kii bi eh, si kii station bi mu ne ma nga wàcc foofu noon xaar booy bi si station bi waaw station Kër Masar ma xaar ko foofu noonu yàggul sax mu woo ma mu woo ma après ci lañ daje daje mu ne ma kaay ñu dem après ci laa ko ñuy dem ñuy dem ba léegi ñu ngi génnee si dëkk bi. ma ne ko foo may yóbbu nii mu ne ma kaay ñu dem rek sama sëriñ fu mu la fu mu la fekkee ne waxoon na ma mu ne am na fu mu lay yóbbu fu ñuy dem ñaani ji mhm. boo leen paree foofu ngeen ñëw si kër gi may may may mottal lépp ma ne ko amul problème après ci lañ dem man xaw ma woon si àll la sax après ñu dem ñu dem ñu dem ba ñuy waaj a dugg si dargaseem bi ma ne ma ne ko booyee mu ne ma ne ko taxawal nga may yóbbu nii mu ne ma kaay ñu dem rek sama sëriñ bi fu mu la wax foofu la ñuy dem bul tiiti bul ragal lu baax nga may defal man mii man man nga defal lu baax te du ma la fay lu ba lu bon noonu laa jàng laqad jaakum rasul min anfusikum e, ba mu motal e, ba mu mot ñetti yoon ci lañ dugg dem waaw sama karaw bi mu ngi commencé di e, defu action yi sama xool bi itam mu ngi def vite mu ngi ko kii quoi may sentir ni kii fu may yóbbu ni du jàmm mais wax naa ko moom nee ne lu baax laa ko defal te du ma fay lu bon mhm. ci laa ko topp ñu dem ñu dem ba ñu mu duggal ma si roko si si àll boobu noonu ba ma dem fekk seen ba foofu noonu waaw mu ne ma fii la sam sirim bi fii la ma waxoon ma ne ko ah mu ne ma waaw mais maa ngi xool côté yëpp sama xel bi dalul quoi sama karo bi ak xool bi sama fit bi taxawul quoi après ci la ma wax ni mu ne il faut ñu julli ñaar rakka ma ne ko ñaar rakka fii mu ne waaw ma xool si suuf mais tànk li ma gis foofu noonu du tànk jaam ma ne ko fii de mënumaa julli fii ay ay booru e, cinq heures e, cinq heures mu ngi waaj a passé quoi six heures mu ngi waaj a dugg parce que mu ngi waaj si yooyu noonu quoi mhm. ma ne ko fii duma mun a julli fii guddi la ma waxoon mu ne ma ñëw ma ne ko man du ma liggéey man du ma ñëw guddi parce que guddi damay liggéey usine parce que mënu maa ñëw guddi mu ne ma ne ko mu ne ma ñëwal guddi rek guddi moo ma arrangé parce que client yi dañuy bari guddi rek laay am jot ma ne ko mënu maa ñëw guddi guddi boobu tan dafa lëndëm te aussi ma la xamoo ma après ci la ma wax ne julli ma ne ko duma ma julli julli du ma julli ñuy werante foofu noonu mu ne penc bi nii la féete ma ne ko loolu musuma kaa si depuis ma juddoo ba léegi musuma kaa gis penc féete nii après ma ne ko nii la wala nii ñuy werante loolu ñuy werante ma ne ko man taalibe la nu munta néew ne xam naa li ma lay wax ni xam naa ci mais nii depuis ma juddoo mosuma kaa gis lii lii lañ noonu lañuy ñuy werante njëkkite ñoom programme nañ lu ñu war a programme lépp après ñuy werante foofu noonu rek mu jékki-jékki rek mu ne leen ko ji leen ko balaa muy wax ko ji leen ko damaa xool fu lëndëm mi foo xamante ne mu ne ma ma eh, côté bu ñuy julli ni mu ne ma jox foofu ginnaaw fi ma wóolu loolu ma gis foofu saako bi ma ne ko waaw saako bi loolu moom ma tere julli bu du woon saako saako yu mag yi la quoi ma gis foofu ñu takk foofu noonu ay saako mais non benn saako laa gis si waaw boobu laa jot a gis parce que foofu defal dafa lëndëm wallahi moo gën leen dem guddi parce que foofu nu munoo xool foofu noonu ba xàmmee foofu lu fa nekk munoo xool foofu ba xàmmee ne lii lu fa nekk mais saako xam nga dafa xaw kii quoi dafa xaw weex looloo tam may ma gis boobu noonu man laaj ko saako bi lan moo si nekk bi ñuy wérante affaire julli bi parce que saako bi laa gis il faut ma ko te li ma gis foofu noonu xool naa lépp te gisuma benn xeeri côté yi ma ne lii xam naa ne lii li ma gis nii ñaaw njorto na sama xel bi lu ma jox ay bopp nit la ma ne ko lii saako lan moo si nekk mu ne moom xamul si mam bi dafa dakaa wax ne rek mu indi ma fii loolu rek mooy affaire am bi. da ngaa gis bopp nit yi wala da nga waaw man jotuma jotuma kaa eh, dem xool mais li ma gis daal du ay xeer du dara ay bopp nit la ma ne ko lii saako bi te yow yàgg ngaa ñëw fii te fii ngeen fii ngeen di nekk toujours léegi lan moo tax saako bi lu fa nekk nangoo ma kaa wax boo ma ko waxee ma julli mu ne moom xamul daal lu nekk ci saako bi ci bi ma bañee loolu mu ne leen mu ne gars yi ko ji leen ko njëkkati gars yi ñu ngi toog foofu di may xaar. waaw ñeneen yi foofu lañ nekk bu ñu su ma julli woon wax boobu man duma ma daw sax du kii teggi sama tànk sa ñoom foofu lañ may ñëw fekkee mais nangu maa julli saaku bi ma gis foofu loolu loolu ma tere julli waaw saaku bi moo ma tere julli parce que yow mënoo dëkk dëkk si mbir nga ne foofu xamoo lu fa nekk sama xel bi ñaaw njorta na mu ne sama xel bi mu may wax ne fii boo jullee da ngay dee fii xoolal tànka yi lii du tànka jaam tan nu mu xootee noonu du comme ñuy xeex ñu doon xeex foofu rek noonu la mel ci man ma bañ ci la wax ne gars yi ko ji rek ñu génnee ci waaw mu ne leen ko ji ko moom bat boobu rek la am wax ko ji ko rek après ñu ñu départ viriri rek si si si dargasen bi ci laa xam ne ñii soxlawuñ dara sama bàkken bi te yëg naa ko xam naa ko yëg naa ko parce que action nu muy demee nii laa xam ne fii bàkken day rocc fi mhm. ñu dàkk ma di may dàkk ñu yoroo ay jaasi damay dàkka ñuy ñu dàkka ma ñu daw si àll bi di da di daw ci àll bi di daw si àll bi ba ma dem génne si pook apias bi quoi ci laa taxaw si ram bi rek benn yoon ñaari yoon rek ma tëb taxaw si apias bi rek may tàllal sama loxo yi pour oto yi oto du taxaw foofu waaw fekkee na ñu ngi ñëw surante wuñu nag mais fekke na tëb naa ba pare taxaw na léegi ñu ngi may xool est-ce que oto dina ma ñëw jël si wala du ma jël si xam na loolu moo leen tere pour ñu waaw fekke si ma après ci la borom moto bi yàlla rek ak kum fayakoon moo ma dimbale ba borom moto bi ñëw taxaw sama wete mu ne ma lan la ba mu ne ma lan la fekke na mënu maa wax sama yaram bi mu ngi kii quoi ma ne ko lu baax laa defar ñii ñu ñëw fay ma lu bon kii nee ne lekkul ñaari fan amul kere lu muy diggante ak sëriñam bi ma dimbale ko mu ñëw fay ma lii njëkkate man lañ bugg a rey ci àll bi kooku mu ne mu taxaw saagaleen foofu ay ponkal mu saagaleem foofu noonu fekkee ne ñu ngi taxaw waxuñu benn ki ñaar nit ñetti lañ mais keneen gi dañu kaa bàyyi foofu ku ma defaloon teraanga kooku bàyyi naa ko foofu kooku waaw ñaari yi rek ko jëleen ko ñoom ñoo ma topp. ay sénégalais lañ ban làkk lañuy làkk. Eh, seen bi day làkk bambara day làkk bambara waaw mais day làkk olof ak bambara ñaari yooyu la la la may wax quoi bambara ak olof. waaw. dañu waaw booy bii de booy bii de kooku dafa xaw ñuul mais ñaari gars yi keneen gi dafa njool mu ñuul keneen ngi xees keneen gi xees ñi ma dakkoon ñu yor jaas yi waaw keneen gi dafa ñuul keneen ngi mu jool keneen ngi xees mhm. après ci la borom moto bi jël ma ba mu wàcc ma si pont bi mu ne ma léegi da ngay wàcc fii jël oto dem fekke na réer naa complètement mënu maa wax ci oto bi fekkee na sama yaram bi nii la. képp ku ma laaj du ma la wax dara bien yàlla def bi ma ñëw fii comme doomu aadama yi eh, man jullit laa eh, diggante boobu aw ma ku may jàppale pour ma dem yóbbu ko si rajo mais usine fi ma doon liggéey gars yi ñu ne duñ ko bàyyi noonu parce que responsable bi yëpp tey fii la parce que boo mëntee fii yii ñii buñ la reyee ñun ñooy jël responsabilité bi ko après ci la ànd ak ñoom baaw ma dem waxtaan ma dem expliqué leen ñu ne ma demal Kër Masar foofu noonu waaw si gendarmerie bi waaw ma wax leen lépp ñu ne ma demal Kër Masar ma dem foofu noonu waa ji ñu fekk foofu mu expliqué ma mu ne ma jéemal yeewu fii fii Dakar la dox daje la boo yeewul fii dañu lay rey léegi. gendarmerie bi moo wax loolu. moo ma wax loolu ma xam ni esa bi wax bi kay moom fi ma doon yaakaar foofu kay tas naa xaaral ma oññee ko ñibbisi waaw parce que découragé ah léegi man foofu laa yaakaar pour ma ànd ak ñoom ba foofu mais mu ne ma léegi fii Dakar la expliqué na ma nu ñu lay reyee yëpp nu nu ñuy jullee yëpp wax na ma mu ne mu ne dañuy dañu lay wax ne nga julli ñaar rakka ñaar rakka boobu foofu la ñu lay ñëw fekkee dagga sa foofu fekkee na yow koy pare nga. gendarme bi si boppam moom moo la expliqué lii nga fa dund. moom ma expliqué loolu moom ma expliqué mu ne ma fii dox daje la jéemal yeewu. moom comme xam nañ lu fa nekk parce que li nga fa dund ñoom ñoo la ko njëkk a nettali euh, la nga xamante ne moom nga fa dund muy muy exactement nu mu demee kon mu mel ni xam nañ lu fa am léegi lan lañ la wax pour que ñu def seen liggéey wala dem wàcc fa wala jéem fa def ay investigation ay saytu non waxuñ ma dara waxuñ ma tous pour seen liggéey boobu pour ñu ànd foofu waxuñ ma côté boobu bu buñ ma ko waxee rek parce que du man kese dama àndoon feexu benn garan usine ba ñoo bokk fu ñuy liggéey après kooku nee ne du ñu bàyyi noonu il faut lii ñu topp ko sax na moo bi bu ma waxee loolu ma xam ne ni man amatuma fi ma yaakaar yaakaarum foofu léegi tas na il faut ma oññeeku dem jàpp sama liggéey bi waaw noonu la affaire bi noonu la fa demee. Euh, ngir balaa ma laa bàyyi ban appel ngay lancé ci li nga xamante ne nii moom moo am foofu nga jot ko dund. comme appel comme waaw comme doomu aadama yi rek ñu nekk dakaar fii parce que man xale la comme ñëw naa nii. Eh, man maa ngi ni rëcc naa am na ñoo xamante lan moo tax ñu si bëri bari xamuñu ko man bi ma nekkee xale laa laa doon dégg sama papa moom muy wax loolu may dégg nit yi ay dëggkati bopp yi am nañ ay reykati nit yi am nañ mais wóolu ko woon ba jour bi ma dem foofu noonu laa xam ne waaw comme doomu aadama yi rek dafa am na loo xamante da koy oyofal fekk na oyoful am na ñoo xamante su ma lay expliqué ñu reetaan ba ñuy daw ñu ne ma eh yow dangaa ñàkk a fayda ma ne la waaw dañoo jàppal lu oyofu te doomu ada lan moo tax ma wax lii pour ma ma wax ko lii si tele bi ñu si bëri bëri nañ bàyyi xel am na ñoo xamante ne dem nañ foofu yàlla dimbala ma man rëcc naa mais am na ñoo xamante ne du ñu rëcc de kenn du leen xam ponkal bu tolli man nii nga dégg ko réer na si dëkk bi réer na diw réer na diw réer na loolu yow yow loolu loolu du jàmm loolu du jàmm dañ kaa rey parce que Dakar nu munta nganda nganda kay mu man fi ma toll nii waruma réer si dëkk bi même xale sax boo dajale ku baax keneen gi mun na baax mun na laa wax ne yow foo dëkk Tingeej wala Kirinjaaylo wala Bambilo wala Sangalkam mu ne oto bii ngay jël wala mu dimbale te yàlla tax mais nga réer man fii loolu loolu nañ xool loolu loolu ay ay réer njort nga ne ñoom agression la dañuy fokkat alalu jàmbur yi wala lan moo leen poussé ñuy def li ni mel. waaw met benn waa ji wax na ma mu ne ñii dañuy soxlaay bopp nit yi yenn xool nit yi yoo xamante ne ñu ngi tëdd si hôpital benn waa wax na ma loolu. mu ne ma dañuy jaay genre yooyu loolu la ñuy ut borom alal yi fay la lu seer ñu ñëw def li waaw ma ne ko mais seen rakka yi ñu ngi foofu seen mag yi ñu ngi foofu duñ dem jàpp ñoom ñu yóbbu leen ñu rey leen koo xamante ne dañ kaa yaakaar yow nga dem nax ko rek mu defal lu baax rek nga dem fay ko lu bon rey ko ma ne lii kay moom lan moo tax may wax Sénégal yëpp pour nit ñi doomu adam nañ yow ku la wax ne dimbal ma koo xamante ne xamoo ko man daal képp ku ma wax ne may ma saam faran saam li may ndekke dama la wax ne deyal foofu sama yoon nekku ci jox naa la sama ginnaaw dem ma dem parce que lan moo tax ma def lii pour nit ñi ñu yeewu ñu xam ne luy dox si dëkk bi dafa garaaw am na ñoo koo xamante ne dafa neex nga ne kii ku baax la defar naa ko teraang mu lay jéem a di lay xëcci pour dem fii ni bul nangu bañal am na lu muy fexe si suuf bu la jaa bu la tegee loxo rek dootoo gis àdduna loolu laa loolu laa mën a waa doomu aadama yëpp ni képp jullit ku nekk si Sénégal loolu laa mën a wax pour ñëpp ñu bàyyi xel loolu waaw jërëjëf euh, yi donc euh, sant nañ ko bu baax a baax gërëm ko euh, ci li nga xamante ne ni partagé na ko ak askan wi ak ñëpp ñu ñuy teewlu di mbir mu doy bi nga xamante ne ni fii la xewee ci Sénégal ci forêt classée bu Mbao ñoo ko déggandoo am na ñu fa nekk di faat ay doomi aadama si biir bërëb boobee di fay rey ay bakkan te moom mi dund na ko yaakaar naa dégg nañ lu mu fi li mu leer nañ ba tax na kon ñi nga xamante ne ni ñoo ŋànk wàllum yoon yor suñu kaaraange si suñu réew mi di Sénégal bëgg nañ ñu def si ay saytu rek kaaraange askan wi ndaxte ay doomi aadama ñu leen di faat euh, si la nga xamante ne nii kenn xamul lan lañ si jublu dégg nañ lu mu ne moom la si jot a dégg mais xamuñ ndax noonu la demee ou pas euh, ci rek lu leen dugal ci li ni mel waaye njot nañ ne xëy na ñi nga xamante ne ñoo ngànk wàllum yoon si suñu réew mi di Sénégal dinañ si def ay jéego donc jaajëfal leen bu baax a baax aussi ñu ñuy doon teewlu Babacar mu fare ci caméra gi dig leen daje ba beneen ak rek ba beneen euh, sujet reportage bi nga xamante ne nii dinañ ko bokk waxtaani fii la ci Seneweb Thank you